sama sama tànk li ko waral euh, am na ay ponk yu bare bi ci gën a am solo mooy cofeel mbëggeel ak respect ak ni ñu nawee sëñ Touba mi nga xam ne lii yëpp moo ko waral ginnaaw suñu borom ak yonentam bu tedd ba beneen ponk bi mooy yàlla moo def sama diggante ak sëriñ Cheikh Anta mu am cofeel boo xam ne euh, presque mot na ñaar fukki at muy nit ku baax koo xam ne ci tarixa bi dañ ko ci ràññee gis liggéey bi muy defal euh, tarixa bi ak liggéey bi muy defal daaru salaam tey aussi di beneen bés boo xam ne taalibe yi daf leen di fàttali lu bare ba suñu maam yu baaxee doon boole seen adiya du ko yóbbul sang bu tedd bi di sëñ Touba donc loolu bu amee suñu warugar la ñu ñëw fii euh, ziyaare suñu xarit euh, fàttaliku suñu maam yu baax yi nga xam ne lu Sénégal am tey ñoom ñoo ñu ko may ci biir loolu nag ma ànd ak suñu porte parole. di doyen Alioune Diagne dina am lu ci sànni mais ma ànd ak aussi samay xarit ni suñu ay camarades di suñu ay euh, euh, militants ñuy bëgg a jëmale Sénégal kanam jëmale Afrique kanam kii di soxna Ndiakhate Mbacke mu ngi nii toog euh, taxaw sëñ abdu Khafor Mbacke mi ngi taxaw moom tamit donc ci famille bi dañ ci bokke façon yu bare bokk ci ndax ni ñu bëggee famille bi ak li ñu famille bi defal Sénégal ak Afrique ba pare ñu am aussi doomu famille yoo xam ne. dañu nangu ànd ak ñun parce que dañu bokk gis-gis ci naka lañu ñu jëmale war a jëmale suñu réew kanam soxna ay Sy tam mi ngi taxaw moo yore euh, suñu organisation euh, fële ci siège ba am na yeneen euh, camarade ñoom mbuub ñoom ñëpp ñu ngi taxaw vraiment ñuy sant yàlla na gis nga bañ fi ñëwee dañ ñu beral loxo wan ñu ne fii suñu kër la teral ñu jox ñu mention spéciale wóoruñu sax ne mérité nañ ko parce que ñu ñu ko gën a mérité rek ñoo fi nekk taalibe yi doxee seen tànk jóge fu sore ñëw ba fii quelque que soit contribution bi ñu indi addiya bi ñu indi ñooñu euh, à la limite ñooñu fi ëpp droit ñooñu fi ëpp sañ-sañ mais ñu sant yàlla di sant sëriñ bi fu ñu gis wane mbëggeelam ak cofeelam ak euh, taxawaayam ci euh, liggéeyal famille bi ak liggéeyal sëñ Touba donc ñu ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ko encourager indi suñu addiya nag comme taalibe yëpp. di ñaan taalibe yëpp mobiliser partout ñu ko def tey ak ñu ko mën def beneen jour ñëpp mobiliser indi seen contribution parce que euh, xalif général bi mérité na ko te moo fi toogal sëñ Touba tey. li ma gën a métti la aussi mooy ñun li ñu yàlla may valoriser wuñ ko dañuy dem wuti ko feneen te mi ngi fii euh, li sëñ Touba defal euh, Afrique nit ku ñuul ak dignité africain yi lii suñu maam bu mel ne Cheikh Oumar Foutiyou li mu defal aussi nit ku ñuul ak africain. suñu maam euh, wala suñu baay Cheikh Ibrahima Niass boo gisee taalibeem yi nu ñu bare Nigéria Ghana partout Afrique foo dem ñu ne la Sénégal nga ne waaw ñu ne ah ñun de suñu suñu wasila Sénégal la nekk Cheikh Ahmadou Bamba nekk dimension universelle dimension internationale bu kenn werantewul ba pare li muy wax africain yi gëm liggéey gëm sa diine gëm suñu borom te di liggéey guddeeg bëccëg bu ko africain yi defoon ñu weesu fi ñu toll nii 60 ans indépendance léegi la ñuy door a am yenn infrastructure yi euh, di ko bàkkoo ba tey baax na ñu ngi sant yàlla ay nit def nañu infrastructure yooyu parce que mënoon nañ ko bañ a def mais lii waroon nañu weesu fii bu yàgg Touba waroon na weesu fii bu yàgg euh, éducation nationale beeg lépp santé beeg yëpp agriculture bi nag surtout mbéy mi mouridisme ak ñoo ànd ñëpp xam nañ ko te mbéy moo yore askan moo yore développement donc foofu yëpp bu ñu tardé ñoo tardal suñu bopp mais ñu mel ne Cheikh Amadou Bamba ñoom bay nañ seen waar ba pare dem bàyyi ko fi donc ñun ñoo war a góorgóorlu delloo si suñu xel te xam ne am nañu héritage boo xam ne buñ ko valoriser kenn dootuñu raw ci àdduna bi.